sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim alhamdulilahi alhamdulilahi alhamdulilah ñoo ngi euh, dolli sant yàlla bam ñu mayee ñu fekkewaat ñetteelu fan wàccaayu ubbite jumaa bi nga xamante ni moom moo di euh, juma Masalikul Jinaan wante ku ñu xool ñi taxaw xam ne tey ñoo ngi fii ni ci résidence bu Xaadim Rasoul bu nekk fii ci Colobane euh, ki nga xamante ni moo di kilifa gi di alifa général de Mourides moom moo wàcc fi nga xamante ni moo di euh, résidence bi moo ngi foofu ci biir di fa euh, recevoir ñi nga xamante ni ñoom noo di ay ganam te nag ñetteelu fan bi dinañ fi xaarani ki mel ni président Idrissa Seck di parti réew mi ak ki nga xamante ni moom moo di président Abdoulaye Wade koo xamante ni kooku moom mën nañ wax ne sax nekkul la invité ci biir euh, ci ubbite jumaa ji wante moom mooy invité ay nit bu ko defee rek dinañ leen toppal li nga xamante ni moom mooy am tey ci ñetteelu bis bi euh, fii ci résidence u Xaadim Rasool

Ablaye Wade moo liggéey lii moo tax tey euh, yàlla fayee ko lii ak Cheikh Ahmadou Bamba euh, ku dul woon moom tey jii nii pour ñu am suuf si ak moom ak Pape Diop ñoo jaar foofu noonu ba tey Masaalikul naan taxaw fu mu war a taxaw donc lii mérit la mérite la voilà donc murit yëpp kontaan nañu di ko remercier euh, ndaxte dafa liggéey ci yoonu murit lu mucc ayib ba tax na tey seen tubaab fayee ko li nga xamante ne nii loolu la mérito tey kii mooy Ablaye Wade voici Ablaye Wade en tout cas seen kàddu et au cœur de l' de Massalikul Jinaan euh, ñoo ngi kontaan bu baax a baax a baax ci suñuy internautes di kontaan bu baax a baax a baax ci gan yi nga xamante ne ñoo ngi leen di interview ñuy wax ak ñun donc ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. mais ñëw ngir nemmeeku jumaa ji nga xam ne ñu bokki taaliba yëpp ñoo fi ñëw ngir defal ko Serigne Touba. mais bi ñu tàmbalee liggéey bi boobu ak léegi léegi mu am ab diir waa yàggul noonu nag fa tabaarakallaa tey ñu fas yéene koy inauguré ne ñu àndoon ko Serigne Saliou Mbacké ne ñu nekk ci nag ne amoon na it plan yu bari nee ba Serigne Saliou nee mu tànn ci plan yooyu yëpp benn plan nee yàlla dogal ñun taalibe ñu jublu ci nee man ak samay moroom nee ñu jàpp ci liggéey bi nee di ko liggéey nag ba tey yàlla dogal mu sotti nee sëriñ bi jàppoon tey jii fa tabaarakallaaw ñu war a jublu àjjuma ngir inauguration bi ne jumaa ji ne comme niñ ko waxe ne jullit yépp ñoo ko bokk ne du murid yi rek ñoo ko moom de ne waaye nag yàlla dafa dogal dañ koo jagleel maam Cheikh Bamba ne moom mi nga xam ne moom la ñu gëm ne man nag maa ngi gërëm yàlla ne ci ah fa sant yàlla bu baax ngir ñi ko tàmbali woon ci laa bokk ne may gërëm yàlla ci bi ma mayee kartan fa tabaarakalla ba ma fekke mën a gis bis bi nga xam ni moom la ñu war a yun a gërëm Masaalikul Jinaan ne xam naa ni sëriñ bi yaakaar naa ni sa xol sedd na ne ñun taalibe daal ñoo ngi taxaw buñ ci amee dara lu ñu war a jubbanti nga wax ñu ko rek ñu taxaw ci ne ndax kat ñun sa bànneex rek la ñuy wut ak lu baax lu rafet ne ak lu méngoo ak bëgg-bëgg maam Cheikh Ahmad Bamba ne amul lu rafet ne ba weesu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ne weesu maam cheikh ahmad bamba ne moo tax ñun bokki taalibe yi lépp lu ñu def rek xeeb nañ ko ne maa ngi lay wax bisimila ne ndax yow yaa ma wax ne ne man maa war dalal gan ne yaa ma ko wax de ne looloo tax tey Mbàkke ma di la dalal ne di bal dalal sama mbokki taaliba yëpp ne di leen xamal ne ne la ñu ci bëggoon ne muy jumaa ju doon jumaa ju mucc ayib ne nga xam ne bu ñuy lim jumaa yi rafet yi ci àdduna bi ne ñu limaale ka Masalikul Jinaan nee sëriñ bi tey nag aw ma daara lu may wax nee xanaa di la gërëm nee di gërëm it ñi nga fi wuutu nee ndax ñoom ñëpp dañ maa jàppale woon encouragé nee ngir ma sottal ko nee damay wax ne liggéey Masaalikul Jinaan liggéey ñépp la mais waaye kon ñun waa communauté Mouride mais war nañoo am sag bu day ni Masaalikul Jinaan mais bi ñu defaree loo xam ne mais muy néegu yàlla mais mu mucc ayib nag mais incha allah ci kàttanu suñu borom subhaanahu wa taala ay nit dinañ jógee ba bitim réew ngir ñëw seetaan si Masaalikul jinaa ne ndax ay nit ñu ngi jógee bitim réew di seetaan mosquée Assane II ne ak yeneen i juma ne ñun daal ñun tabaarakallaaw ñun askan murit ñun ñi nga xam ñooy yoon wi ñun ñëpp war nañoo am fierté ci ji Jinaan ne man nag lépp lu ma defal Serigne Touba ne ak lépp lu ma defal Touba it xem naa ko ne xam naa ko nee bu ñu yàlla dimbale ba nga noppalu ne dinaa la nuyu si ne wax yeneeni xalaat yoo xam ne ne yaakaar naan dina baax ci Touba ne te dina baax ci yoon wi ne loolu boo ma ci joxe ndigal rek ne ma jublu ci loolu ne yalla na yeex ba mo wuy ci sama borom ne man loolu rek la japp ne ab talibé la rek bu wara dox ci yoon wi ne ngir rek ngir bëgg am ngeureuma serigne Bamba. serigne bi nee na mi ngi lay dolé sante bu baax di la gëreum ci nim la ko daan waxé naka jek ndax yow président serigne bi xam nga li nga séq ak yoonu murit xam na li nga japp sa ak serigne Touba. ndax nguur boole wala ak yoonu murit mu ne loolu nag sëriñ bi jàpp na ko te sa tànk tey yii firnde la ci ndax wàccoon na la sax mu ne boo yónnee woon mu jàpp ne teew nga kon mi ngi lay sant bu baax kon ci ànd bi nga xam ne lii nga xam ne yéen a ko bokk muy ubbi teg jumaa ji kon serigne bi dafa wax ne mune na sa xel dal bu bax ndax serigne Touba dafa waxone ne anna man waasala nii laa laa laa yu xaridu duni wii fa inna yakuunu mi innal muxarabina wa anna man wasaliina li duniyaa faxat fa inna allaaha yukrimuhu maa daama hayuk nee na képp koo xam ne ñëw nga ci man te àdduna taxulaa jug suñ mborom dana la boole ci ñi ko gën a jege ku ñëw ci man nag te àdduna tax laa jug suñ mborom dana la teral sa giirug dund mu ne kon képp ku yaakaar sëriñ Tuuba na nga xamne suñ borom dana la teral sa giru dundu nee kon mi ngi lay fatali lam la waxon rek ba nga ñëwee Touba mu wax la ko ci làmmiñam ci li nga xamne jëfël nga ko yoonu murit te ñëpp xam ko muy lo xamne mom da koy fatali mu ne ta wax na la ko kérok mu ne kon lolu na nga xamne du ko ñim ko sekkali duñ ko fàtte kon cant rek la la amel ak ngeureum ak dila ñaanal mu ne ñaan giit mooy suñ borom dëgëral la gën laa dëgëral kàttanal la gën a dolli sag nga gën a réew mi lu yàgg ndax loolu bëgg-bëggam la nee na itam mu ne la nga ko waxoon bi campagne bi jub mu ne dégg na ko bu baax lam la ci waxoon it foofu rek la ci nekk mu ne ndax sëriñ bi dalaa waxoon ne mu ne daf fee nekkoon ak ay kilifaam sañu ta def sañu ta dindi léegi nag ndegam yàlla def na moom mu nekk fi te xam ni nga demee ci moom lépp loo xam ne lu ko war la sa diggante ak moom nee na mi ngi ci te mi ngi ci bu baax a baax mu ne te gën dina la ko gën a leeral ba nga gën koo xam mu ne kon mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax waxtu wi dafa jot te sëriñ bi ñàkkul lu mu bëgg a wax ak yow waaye mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci jëf yi nga xam ne jëf nga ko ci yoon wi jëf ko ci réew mi ndax lépp looy jëfal réew mi bu dil Touba cant gi war na ko ndax sëriñ Saaliw bi mu fi toogee màggalu tubaa ga njëkk a jàll ba gàmbug Tiwaawoon dafa yénn ci ndaw ne lépp loo defal Touba na ko fa def mu kon loo defal réew mi rek moom nga ko defal te réew mi sa jaf ñëpp gis nañ ko kenn fàttewu ko jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullah gis ngeen euh, lii mooy li nga xamante ni euh, tey moom mooy solo bis bi euh, ndaxte gis nañu visite le président Abdoulaye Wade moom ku ne xam na lu mu liggéey ci bile kër di kër Cheikh Ahmadou Bamba rawatina ni mosquée bi nga xamante ni moom la ñuy waajal muy vendredi bi di ñëw incha allah rabi bu ko defee ñi daal di ko inauguré ci benn inauguration boo xamante ne gëm nañ ne dina mucc ayib. ba tax na tamit gis nañ fi yeneen autorité comme niñ leen ko waxee rek ak seen kàddu donc dinañ leen wan lépp loo xamante nii fii lay xewee ci résidence ma du Bamba ak tamit fee nga xamante ni moo di solo su bës bi eh, di Masalikul Jinaan tey gis nañ fi autorité yu bëree bëri lu mel ni le président parti réew mi di président Idrissa Seck moom tamit ñëw na fi daal di ñëw siyaare ki nga xamante nii mooy xalifa général des Mourides donc di lañ joxaat dig daje rek ci seen beneen numéro di suba incha allahu rabbi